mbas mi di Covid 19 mi ngi gën di jur ak tiitaange ci askanu gu Sénégal uh, kon tey jii am nañ ci lu tollook ak juróom-ñaari doomu aadama yu ci jot a ñàkk seen bakkan uh, juróom-ñaareel nit ki ci ñàkk bakkanam góor la mu ngi am ci lu toll ak juróom-benn fukki atak juróom uh, kon ci aljumay tey ji ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru. avril fukki waxtoo ko benn euh, jotee ba toftal juróom fukki simili ci service des maladie infectieuses et tropicales euh, fee ca l'hôpital Fann communiqué bi nag mu ngi bàyyeekoo fee ca waa ministère bi ñu dënk wàllum wér-gi-yaram yaram gi